alors euh, à la une euh, du journal L'Observateur mun ngeen ko am fépp fépp fépp euh, partout donc à Dakar et dans les régions vieux indil ma une L'Observateur une L'Observateur bi en entier donc saisine de l'Assemblée nationale Diomaye Faye enclenche la procédure de dissolution du Conseil économique social et environnemental et du HCCT donc mu nekk à la une du journal donc L'Observateur mais également mun ngeen lire le meurtre de Dabala de Wally euh, les euh, liaisons dangereuses euh, à lire donc une révélation sur un groupe de malfrats opérant en duo mais également donc dans le secret des confrontations les parents d'Aziz et Wally entendus par les enquêteurs loolu yëpp mun ngeen ko lire donc ci biir yéenekaay bi de l'Observateur ci page huit ak neuf bu yéenekaay bi et également politique PS AFP l'impossible survie dans l'opposition la nécessité d'une renaissance avec du sang neuf euh, donc euh, un dossier également à lire un autre dossier très intéressant à lire dans le journal L'Observateur mooy la tendance skincare euh, dinaa ñëw si waxum skincare sànq si kanam ak suñu sponsor météo di waa Gen Skin dama gis dama gis dossier bi rek ci ñoom parce qu'on a l'habitude de dire que les hommes il faut prendre soin de votre peau donc dans l'intimité des hommes qui prennent soin de leur peau donc les sommes dépensées pour le gommage le masque les sérums les crèmes crèmes hydratantes loolu yëpp nag si àdduna la bokk la routine skin skincare chez les hommes est mal perçue euh, donc euh, à lire également dans le journal l'observateur skincare nag ci góor loolu tamit du crime mën ngeen ko rek euh, daal di def bu <laughs> bu baax a baax nest pas professeur donc euh, journal observateur 100 francs lay mun ngeen ko am partout donc euh, au Sénégal ñu ñëw ak ci yéen bi nga xamante ni moom mooy yër lépp lu jëm ci wàllum tàggat yaram euh, kon di record donc Malick Thiandoum à la une de record ñu gis suñu Sadio Mané. notre international la ñancoo ca Saudi Pro League moom nag Al Fehia Al Nasr à 18h la ñu war a daje waaye nag fenêtre ba la nga xam ne moom la ñu ubbi moom ma ci gën a neex. Mm. mooy basket équipe nationale féminine Didi l'ascension d'une pépite xale la bu nga xam ne toj na euh, préqualification yi mhm. ba bokk ci ñi nga xam ne moom lañ tuddee cinq majeurs mhm. te ñu bëri ñu ko woon parce que pratiquement compétition bu mag bu mu njëkk a disputé mhm. mi ngi noonu moom Didi moomu kan elle incarne l'avenir du basketball sénégalais suñu gaynde yi sax tey ji lañu ñu war a ñibbisi incha allah à 19 heures euh, ñu ñëw ci beneen muy euh, Diomansi kamara nga xam ni moom conseiller la bu Nicolas Jackson cela fait plus d'un an sur le petit euh, moom Obi Mikel John Obi Mikel dafay xas rek euh, ki nga xam ni euh, moom moo di Nicolas Jackson Nicolas ba mu dugalee nag da ko daal di tontu éliminatoire éliminé par le stade d'Abidjan mhm. waa Teungueth FC nag fi mu nekk nii am nañu wax dëgg yàlla lu leen metti lool ak déception mhm. Louis Lamotte membre di comité exécutif de la fédération sénégalaise de football il faut que nit ñi xam ni ci fédération bi nekkuñu fa ngir enrichir wala di xaalis Alexandre Ndoum euh, mi euh, yër ak ñun yéen kaay euh, bii di record ñu ñëw ak yéen nag ci li nga xamante ni moom mooy météo ak bien entendu suñu sponsor di waa Jenskin